tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub ok li ñu koy defee saa ne rek ak jeune talent allah tey nag euh, yaakaar naa ñu ngi fi ci gaynde gaynde suñu kër la xam nañ gaynde macha allah yàgg fi ñëw macha allah fekk fi daanaan mu nekk waaye tey nag ñëw fi ak beneen méthode fekk benn daanaan boo xam ne macha allah kenn du ko présenté ci Sénégal macha allah muy doomu Thiès macha allah yëngal Thiès nag ne nag Ndakaaru Ndiaye dugg si naa parce que Ndakaaru dafa am place te damay ñëw euh, li nga xam ne mooy géew showbiz bi macha allah dama cee bokk dama jël sama game muy Pambay macha allah ku nekk xam na ko ko présenté ci Sénégal àdduna muy jeune talent di woy lu neex mais Pambay tey ñu gis la nga ñëw nuyu si waa Ndakaaru sa première fii ci bokk euh, ci fii ci on va fii ci euh, Gaynde Club lan moo ko waral ak lan moo tax nga jógee ca ñëw tey avant ñu dugg waxtaan bi. waaw maa ngi nuyoo. Sénégal yëpp di nuyu adduna di bég ci def ak yow interview mhm. ndax lu yàgg euh, lii xame xame bi am na dëgg la te muy xame pas-pas ba tax na contentement la am ci ñëw fii mhm. Dakar yàgg naa ko bëgg mhm. ndax euh, ku ne xam ne Dakar mooy capital dëgg la te showbiz bi niñ koy waxee kenn moomu ko ñu am ci cër xam nañ ñu am ci wàll te loolu ñu si moom dañuy ñëw percé jël ko loole rek ñu indi gaynde mhm. ñu ñëw fi nag ngeen soutenir ñu mhm. jàppale ñu mhm. ba mu am réussite bi mu am tey franchement allah li wax am na solo mais tey Pape Mbaye ñu gis ne Thiès nga dëkk sa base Thiès sa lépp Thiès la tey boo leen wax sa jaar-jaar tey tuuti musique avant tout xam naa peut être du émission mais interview doo la def après beneen noonu nañ toog plateau ñu yaatal bu baax a baax sa carrière tey boo wax toute sa carrière lan ngay wax Pape Mbaye benn jeune la rek bu bëggoon musique mu nekk passion waaye mu nekk lu mu yaroo ci kër goo xamante ni ñëpp ay artistes lañu. Mm. musique la ñuy def loolee nag la ñu yàlla def ñu bëgg ko di góorgóorlu di góorgóorlu di tëb jaanu mm-hmm. jaar fi gaar gaa jaar mm-hmm. te ba léegi ñu ngi ci yoon boobu mm-hmm. di way sumb yenn mbapat mu yàgg ñu dugg def di def acoustique di mooy sama nag euh, ci laa gën a jàng ci musique ba mu yàgg yàlla def may jouer soirée Thiès nit ñi di ñëw li ma def neex leen ba ba ñu dem bay joué gaynde Dakar mhm. comme nii rek te am objectif wu ñu def tournée internationale mhm. loolu mooy suñu macha allah fi ma fi ma ñëwee rek xam naa beneen yoon plateau dañ ko yaatal mhm. muy bi dugg see dama gis macha allah ngay joué ak ay tubaab aussi ma gis acoustique bi nga joué comprendre nga vraiment acoustique yombul daanaan mën ko mais dama toog concentré wu sama cameraman jëlal mais mu jël ma gis li nga joué acoustique macha allah mu jaar yoon ma xam ne daanaan nga mais après nga jeexale mooy ambiance ma xam ne loolu dafa jafe ci artiste ñi dañu mën ambiance ñu mën acoustique mais da nga ñëw macha allah yàlla am lu la may muy deux yëpp tey mais da loolu damay bàyyi après bañ toog plateau ñu wax yaatal ci baax a baax te gis naa sa dernier son itam li nga reprendre ci bëri loo bëri loo xam ne magu maanaam musique démb la loolu yombul xale di ko reprendre kon boo nee da nga juddoo ci way maa màggee ci këru géwél maanaam wala màggee foo xam ne aar la kon dama koy gëm tey mais Pambay ndakaaru xat na suubis bi metti na buuxante bi metti na pourquoi nga ne ndakaaru est ce que xam nga ne gayndee ñëw ndakaaru gaynde bokk showbiz Ndakaaru yaa ngi sóoraal loolu est la xale yaa ngi fi de. dëgg xam naa ko bon mais euh, ñi fi nekk je pense que ni ay jeunes talents yu yu yu mën a yu ñuy def lañu waaye da cee dañ cee bokk am ambition am gëm-gëm te ay nit rek koy def de. Mhm. li xew lépp ay nit rek koy def. te bu ñu yàlla boole si nit ñooñu nag. dañuy jàpp ni loolu jombuñu. Mhm. set teg nañ suñu bët furaw loolu sax. Mhm. dëgg fa moo tax dañuy ñëw ak yéen. ànd koog yéen dara du impossible. Mhm. ngeen jàpp ci dooleel ñu. ak DJ Momo ndax ku ñëwee dañ laa dégg. dëgg la te ñi jàppale gars yi ba ñëegi fii. Mhm. ñooñu ñëw nañ pour jàppale. dëgg la waaw dëgg la loolu rek a dal suñu xel. Mhm. ba tax ñoom ci fierté. macha allah ñu gis talent bi macha allah mais tey sa diggante ak waa Thiès parce gis nañ ne jeu Thiès yomb na nit ñi ñëw mais nga déplacé wu ñëw Dakar waa Thiès ñëpp déplacé ñu jël attaque ni particulier ñu jël ay li nga xam ne mooy bus ñëw vraiment boo gisee poul bi nga xam ne lii waa Thiès la tey lan mooy sa diggante ak waa Thiès loolu nag bokk na ci li ma gën neex ci soirée bi ndax sama dëkk dañ maa topp surtout yàlla dafa def dogal sax bis bis mini bis la jëloon di mhm. dem ba ci péage bi comme heure bi mu xaw a guddi waaw euh, tardement sax ñëpp bëgg a dem Thiès ma topp mhm. moo ma tardeel Thiès mhm. ñëpp bëgg ma euh, topp loolu ma tardeel Thiès ba tax ma bàyyi fa ñu bari sax ñu ba ci yoon bi bis bi ñu ni mënul jàll en fait euh, ñu obligé ñaari oto yu ndaw rek dem ñenn ñu ñëw moo tax yéene bi ñu amoon sax. Mhm. xañ na xañ na lii. waaye nag yàlla la ko bëggee woon. Mhm. Mhm. xam naa ni. dëgg la ci kanam dinay dinay gën a yaatu. ci kanam lay ñëw ah, macha allah am na solo trop mais gis nañu en fait euh, tey showbiz bi bëri na xuloo ngaayoo xiiroo tey ci artistes yu bëree bëri jumel ci artiste ba sama jumel moom wax ci artistes yu bëree bëri mm-hmm. tey boo doon joxe euh, tey conseil ci mm-hmm. showbiz bi parce que showbiz sarakal du ko def yaakaar na parce que showbiz dafa ànd ak wax dafa ànd ak coow est que pare nga pour dékk lu nekk tey ci showbiz bi pare nañu pour dékku lu nekk pare nañu pour dékku lu nekk ndax euh, tey Jibozo suñu gën nañu rafet njort ndax suñu ablaat nee na boo nekkee ci yoon gis ñaar ba ñett ñu ñëw jàpp di la jàppale na nga xam ni loolee ca kanam la jëm dëgg la waaye boo ci wéetee rek na nga ca ragal bu ma dee def nag ñëpp ñëw li may def di ci jàpp te mu jaral leen lu nekk mhm. damay am fit loolu mu fital mhm. gaynde nag kon nag kon nag. gaynde nag franchement. ñu ngi leen di remercier ndax suñu objectif mooy bu ñu ñëwee fexe jéem satisfaire leen ci li ñuy def. ay ubbil nañ ñu seen i bunt. yombalal nañ ñu ko dara jafewul. lépp yomb na. te artiste buy dégg gaynde ak bi mu am. ba tax nga ragal ko ay nit ñoo fi joué. te koo gis ci njëlbeen. day sew. début day débuté am ci lu mu tàmbalee. Uhuh. te dañ koo jàppale ba mu yegg fi mu egg si. tax na gis nañu taxawaay bi ñu am ci artistes yi. Mhm. ñi fi ñi nekk ñëpp la ñu amale. Mhm. wax bi ñu ñëwee c'est la première fois mu joué mais. dëgg la ñun ñëpp di def la ñu defal. sono bi ñëpp di joué la ñu. Mhm. mooy Paco waaw Paco Events ak buntu. pare nañ pour liggéey ak ñoom te tamit pare nañ pour liggéey ak Gaynde. mooy defaat Dakar lu bees révélation année bi mhm. fii la génne ci Pambay ak Pambay a nga de ah loolu am Pambay yow nu mu demee noonu li ma la wax nii kay nga nga ñëw de li ma la wax nii xam nga ne gaynde la fiy dugg de dëgg neexul fi la Kéba di joué fi la Bambal di joué waaw loolu am na ay ah, ndaanaan la fiy joué ndaanaan bu dul doo joué gaynde man xam naa gaynde waaw ah, te damay ndaanaan moo tax moo fiy joué te première soirée nga ñëw toj ko waaw wane te dafa am lu tax sax effet loolu dëgg la mais yàlla baax na yàlla daal luy suñu lu si la. non première soirée journée ouvrable. sama doomu ndey ko. waaw lu ma lu ma yéem la aussi. première soirée journée ouvrable. Mhm. du week-end un mercredi. li ko dalee lundi mardi mercredi ku ci toj rek dañ naan ndaanaan nga ci gaynde mhm. dëgg la voilà euh, man en personne aussi j'ai constaté que ni effectivement am nga ay euh, identité yu bari yu rassemblé wu ci yow mhm. influence boobu euh, gis naa ci Aliou Mbaye Nder loolu euh, bàyyi nga ci xel wala bàyyi woo ci xel. waaw loolu laa doon laaj question boobu man laa amul pour laaj la ko man dama ni gis naa ci waaye yu bari. yu bari moom laa ko wax nag plateau laay yu bari yooyu nag am na bu ma ci seetlu boo xamante ni day ñëw souvent ci say mélodie. Mm-hmm. ci say style de de chant. Euh, muy bu Aliou Mbaye Nder. may laajte ndax bokk ngeen dara wala dafa am. voilà influence boobu fan la jógee daal. yow da ngaa sàcc sama question da nga ko sàcc Prado laa ko bëggoon may bàyyi. Aliou Mbendane boo dara ci musique mën na nekk def di def musique bëgg mhm. musique nekk jeune euh, nekk xale te mélodie Aliou Mbendane dugg la musicalement bokk na ci ñi gën a fort ci mhm. Sénégal musicalement mhm. ba tax na xale yëpp koy déglu te loolu it bokk na ci li tax bu ñuy joué suñu soirée ndax man damay déglu damay déglu ñëpp damay am damay euh, damay jël ci ku nekk tonalité. Mhm. ndax euh, je pense que ni saa yi soo waayee traditionnel rek démb. dëgg la mu fàttali nit dara. te loolu di ko indi ci ay live ci bokk. n'empêche que teewul ñu yor suñu répertoire bopp mën nañu jouer soirée ba mu jeex te duñ laal morceau jàmm. franchement mais di wayaat wayu nit ñi fi nekkoon ay Papa Thione ay Alioune Mbaye Nder ñoom sunduur dafay delloo nit. Mhm. ci ay moments yu dundoon. ndeysaan ci période bi way wow di génn. dafa bokk ci soirée. ma jël ko inséré ko rek di ko def di ko dugal ci biir morceau yi. macha allah ah dëgg am na solo xam naa li des dañ koy. ah léegi nag dama am beneen question mooy mujjee dóor. bi doo. non non yow xamul looy def lu ne. looy lu ne man du tàggoo su ma def su ma ko fekkee ci laa bokk mu neex la mu naqari la sinon ma këf caméra yi dem sama yoon. mais Pambay dafa am lu ma seetlu aussi ci euh, orchestre jeunesse orchestre de jeune mooy mooy mooy mooy boy bi dafa waane quoi ci wàllu orchestre ci wàllu matériel. waane bi mooy. dama seetlu euh, mu am benn saxophoniste mm-hmm. et ci ci boobu maa ngi ci gi beneen maa ngi ci gis beneen couleur musicale euh, et c'est très important yow fan nga jëm ci wàllu style musical ci fan nga jëm ci wàllu style musical yow. style musical bi mam mooy dama viser def musique internationale. ah super ci mbalax rek mbaa acoustique rek damay def mandeng musique mandeng juk afro yooyu yëpp ñu ngi ciy di ci jéem. loolu mooy sama objectif maam di def lu international lu àdduna yëpp mën di déglu di ko commencé moo tax dañuy laal ci xeetu instrument yëpp loolu loolu lañ jàng daal. <laughs> en tout cas c'est une fierté donc voilà euh, on va sentir la naissance donc euh, d'un héritier du royaume du Kayor et que ça va faire la fierté du Sénégal comme ni nga ko waxee nag euh, on te souhaite le bon vent c'était de ma part moi-même DJ Clédor du Gaindé kon xam naa dañ lay bàyyi rek nga tàggoo remercier yi nga xam ne moom ñoom ñu ñëw ci soirée bi tey macha allah. maa ngi remercier ñëpp di leen ci jiital yéen yéen ñi nga xam te ni bàyyi ngeen seen yitte yëpp ñëw ci jàpp. Mm-hmm. ak waa Thiès gi ma jógee ni ñu ma dooleel se ni ñu ma jàppalee ni ñu ñëw ànd ak man am na ñoo xam ne ñoo fanaan si Dakar ngir événement bi. Mm-hmm. te du xaalis du dara dañ ma bëgg teel a. dëgg la te yàlla tax waaw am ma seen maa ngi bëggee ñëpp. Mm-hmm. di kontaan ci waa Gaynde. Gaynde ndeysaan di wax ni kat moom sama kër. waaw fi la rek maa ngi leen ci woo di woo mhm. Dakar yëpp. Mhm. am nañ fi date je pense. Mhm, le 14 ko. ko gën a waaw dinañ ko gën a yaatal communication bu yaatu. fekk ma xam Idaara yi day fekk sax waaw daa xam keneen rek. jeex na keneen rek jeex na mu gën a yaatu jeex na mu gën a yaatu. Euh, di la wax euh, bon va comme li sama copain waxee rek di wax yal na yàlla defal la jàmm aussi li nga bëgg ci musique suñu borom ak la ko vraiment xam nañ musique ñu dañuy suivre musique xam nañu nit bu ne dara ñu xam kii kan la mais vraiment gis nañ ci loo xam ne dañ toogaat ci plateau incha allah fan yi gën koo yaatal kon lañ lay bàyyi rek nga dem dallu ji. jërëjëf sama waay da jàmm ñal jaara busub wala mañ se bi jaara